d'accord merci ñu ne moom lu mu def quand même ñun en tant que waajur kontawuñu parce que boobu baaxul si si si xale parce que moom lu mu def en tout cas ñaru koon def moom euh, en tout cas dépositaire de secret warul warul en tout cas euh, diffuser secret moom euh, homme de tenue la tamit dafa war a respecter hiérarchie waaw ñun en tout cas kontaan ñu te ak moom andi ñu ak moom. jotu leen a jokkoo moom laata muy jël bile décision. jotuñu ko suñ suñ ko suñ ko jotee duñ ko ñeme de kon ba mu amee ba tey déggu leen ko. dégguñu ko mu ngi koy wut ba tey gis ñu ko depuis une semaine. Hmm. waaw suñ ko gisul woon jël ko kii ko parce que pour moi en tout cas àndul ci sagoom. da ngeen jàpp ne àndul ak sagoom. man loolu laa foog. dafa mës am problème mu xel si euh, lu weesu. déedéet déedéet mësul am problème xel. lu tax ngeen jàpp ne kon àndul ak sago. parce que lu mu wax lu mu wax en tout cas mësu ko wax et puis lu mu wax soo suñu déggee lu mu wax. jaaduwul parce que léegi moom en tant que euh, petit gendarme. su su mhm. laajtee démission membre gouvernement wala procureur mhm. xam nga loolu loolu àndul xelam su su su poussé encore population bi dem marche wala kii mhm. loolu àndul sagon waaw ñu en tout cas ñu laa ko gisee noonu nga ko gisee waaw parce que moom dégg naa tey su suba wax naa mu ne moom en euh, dara jotu ko waaw loolu la effectivement nee na il est en bonne santé dara dalu ko lu mu def ci lépp rek wala ilaa lu mu wax da koo def ci propre gré maanaam ci coobare boppam. am nga am nga am nga xel euh, feebaru xel. Mm-hmm. le fou ne dit jamais qu'il est fou. le fou croit ce sont les autres qui sont fous. Mm-hmm. le fou ne dit pas qu'il fou mais moi. jusqu'à preuve contraire. àndoo uh-huh. euh, ah, je peux dire àndul ak sagam c'est un fou. d'accord depuis ba mu amee ñaari at ba tey euh, mi ngi ci say loxo yaa ko yar euh, tey yaa ngi ñuy xamal ne li nga gis ci moom mbetteel la ci yow ndax mosoo ko gis ci moom ba nga jàpp ne àndul ak xelam lan nga mën a ya lan nga yaakaar ne moom moo ko tàggalee ak sagoom. non am nga peut-être dossier bi walla en tout cas bon mën na nekk ci mystique parce que Afrique la nekk mais en tout cas man. wóor na ma àndul ak sagam. wóor na la àndul ak sago. waaw. moom am na soxna noo. am na soxna. am na ay doom. am na ñaari doom keneen beneen bi sax benn jigéen ak benn góor góor bi man la ko tuddee. yow la ko tuddee macha allah. Mm, léegi ana soxnaam ak doomam yooyu. ñu ngi foofu si caserne bi. ñu ngi si caserne bi mu bàyyi te nekkul mm. ak ñoom. waaw. ak famille boobu. waaw toujours maa ngi koy oo mu ne moom tamit déggul kii. moom it déggul Omar. mu ne déggul Omar. d'accord. Euh, dégg nañ euh, li nga wax yëpp da nga jàpp ne euh, àndul ak sagoom sa xel aussi ñaaw na ci wàllu wàllum mystique maanaam xar fa fuufa neem sax dégg nañ ko mu ne lépp lu mu def rek moom moo ko def ci coobare boppam neem déposé gul lettre démission wam fa nga xamante ni fa la ko war a déposé léegi yéen ngeen ne dangeen ngeen ko soxlaa gis wa illa da ngeen ko soxla dégg bu ngeen ko gisee yan tànk ngeen si fas yéene dox. ñu koy suñ ko gisee. Uh-huh. première fois bi ñu yóbbu ko si psychiatre si hôpital. deuxième bi ñu utal ko en tout ka sëriñ pour ñu sang ko. sangat ko waaw sang ko parce que ce qui est ak xelam. àndul ak xelam daal ngeen jàpp. voilà àndul ak xelam waaw. nga yaar ko boo ñu ko doon décriral tey ban genre nit la moom capitaine Touré. ah man en tout cas damay wax du Umar bu ma xamoon. waaw parce que Umar bu ma xamoon. C'est un homme sérieux, calme, qui rendait toujours service à la population. même soo ko fekkee këram ou bien ay nit doo wax ci capitaine mhm. la. mais léegi léegi en tout cas depuis depuis sortie yi. en tout cas man xaw ma xaw ma quel genre de personne il est maintenant. su ma la déggee daal beneen Omar nga gis par rapport ak Omar bi nga yaroo. beneen Omar laa laa gis beneen Omar laa dégg. kañ ngeen gëj déggoo laataa lii de am. bon defe naa il y trois jours de cela. def ma mhm. oo. Mhm. mootul sa ñaari minute mu coupé. mu coupé. waaw def ma oo ma ne ko Omar foo nekk mu ne mu ne papa en tout cas je me porte bien et je suis en sécurité ma ne ko man du du loolu du loolu laa kii fu ñu nekk. gënal foo foo nekk li nga def nii baaxul li nga wax nii arrêté ko doo waaye arrêté ko bul dem ci rajo yi bul bul def ci réseaux sociaux yi en tout cas yëpp pour nga ñëw ma ne ko yow àndoo ak Sarsaga ma ne de mu moom en tout cas dafa fii day day ñëw vendredi ma ne ko foo loo def foofu ba loolu la ma wax man sax. Mhm. boo bu ñu doon bu bu ñu doon entendre Sonko. dama ragaloon dema ragaloon ñu nekk si euh, pays ci ville yi def yàkkant yàkkant ñu ne moom moo ko moom moom moo ko def loolu laa ragaloon. waaw yàlla def sutura. Mhm. sotti ci ndox ba affaire yi kii sedd. Mhm. waaw en tout cas damay ñaan en tout cas. dama ñaan yàlla pour ñu gis ko pour ñu gis ko en tout cas ñu ñu tëj ko et demande pardon aux membres du gouvernement à la population sénégalaise